taalal xel yi damay lii na mu ne thank you very much you are doing good job I have to I have to Abdoulaye I have to do this job to inform my people okay I have to damay lire rek maa ngi ñëwaat lu xew jibi Casamance Gassama jibi Gassama lu xew ay dara la capitaine Touré ñëw wax ay tur ak yépp ak ay sant moom mu sàcc film bi génn tuuti bàyyi li ci des moom la ñuy woo nag pour mu ñëw wax pour su ko defee coow li jeex kenn ku ne xam fu dëgg gi nekk ku tooñ ak ku tooñul ñu mën a continuer suñu procès mhm. yépp mhm. Sénégal ñoo bokk ndey ak baay Sénégal village bu ndaw la ma sàmba xam na ma Demba ma Demba xam na ma Paate ma Paate xam na yoro yoro xam na ñëpp lu xew fii ñëpp a koy yëg soo loo nëbb nëbb nëbb nëbb question de jour rek la question de semaine affaire bi day feeñ ok voilà mu ni Bougane moom bokk bu dul Ousmane Sonko dafay masla rek bëggul Ousmane Sonko mais dafay maslaa rek wóoluwuma ko non Bougane c'est dama bëgg mu leer leen Bougane c'est Macky ah partage leen live bi gis naa yéen a ngi koy partagé ñu ngi ci 114 donc information bi damaa bëgg ñu jàpp mu jàll bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que man xam nga ay vues intéressé wu ma man na li may wax na dem rek su ma paree ñaaree damay effacé live bi <laughs> man sama bopp maa koy effacé waaw léegi nag na message bi jàll yéen ñii dooree ñëw ma informé leen capitaine Touré. dafa ñëw toog di interview ak amet ay dara wax ko lépp ñi nga xamee ni ñu ngi ci complot bi ñuy ay ponkal am na jigéen am na ay góor ci biir tuddal ko tur tuddal ko sant te capitaine Touré moo yore document yi yore PV yi lépp bu mu paree Ahmed Aïdara seet la ko ca arrangé mu génne ko fa ñu tuddee tur yi ak ñi defar complot bi mu denc ko moom nag laay woo tey ni ko bu la capitaine Touré gën ndey bu mu la gën bàyyi bu mu la gën nekk patriote parce que yow ay dara sénégalais yi dafa am fuñ la teg ay dara sénégalais yi dañ laa fonk ay dara Sonko da laa fonk ak patriote yi donc problème bi ça n'a ça couté quinze vies quatorze de nos enfants inclus benn juge ak juge bi nu mu mën a mel ci àddina il méritait quand de vivre parce que day yombul dee dafa metti ak lu mu mën a mel nag nu mu mën a mel il méritait de vivre te ce problème nous a coûté quinze vies au Sénégal et ensuite nous a coûté le général le digne patriote général Jean-Baptiste qui a démissionné à deux mois ci retraitam un patriote un homme intègre que le Sénégal a besoin parce que ce sont les champs de type de de main góor yi nga xam ne ñoo defar États-Unis ba mu développé ñu mel ni Jean Baptiste ak capitaine Touré ak Ndeye Khady Niang soo capitaine Touré l'a causé la prison de 45 jours ensuite ñu dàq ka parce que il a dit que la vérité est uniquement la vérité devant Dieu parce que dafa prêter serment et il a respecté son serment Ndeye Khady la reine Ndeye Khady no le noble Ndeye Khady Ndiaye gor gi Ndeye Khady Ndiaye dangaa mérité tey les patriotes jël réew mi tuddee la benn boulevard boulevard Ndeye Khady Ndiaye dañ ko mérité capitaine Touré danga mérité ñu tuddee la boulevard Jean Baptiste da nga mérité ñu tudde la dëkk dëkk lam da nga ko mérité waaw parce que ci histoire u Sénégal da ngeen a nekk ay patriotes ci histoire du Sénégal problème bi daf leen a coûté seen àddina ngir taxaw pour wax dëgg gouvernement taxaw di leen jaay doole ni lii du fi amee soit dañ leen di gënd wala soit dañ leen di bundoxatal wala soit dañuy yàq seen addina kon affaire bi ñëw ba ci ay Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara bloqué bal bi toog ci non loolu du mën a nekk amet Ahmed il faut nga continuer affaire bi parce que fi mu jot a jaar yoon bu sore la jaar te ça a coûté des vies ñoo xam ne ñu ngi ci biir suuf dafa coûté ñoo xamee ne dañoo gas tey ba mu xot ñu dugal leen fa seen yax mu nga fa ñoo xam ne dootuñu dell siwaat te ñu nekk ay jeunes yoo xam ne mënoon nañu dundaat ba ci kanam te xeex bi jeexagul kenn xamul lan lay in am amaat encore nga nar a toog ci dëgg gii dangay ngay génn géew amul sama patron amuñu droit tudd tur amul lii mais kii ñëw di wax bàyyi ka mu wax ni mu ko waxee bàyyil mu waxee ka noonu c'est pas toi Ahmed du yow yaa doon wax somebody else was telling the truth that's not you that was not you who tell the truth that's somebody else who Captain Touré so you have to bring out this da nga koy indi parce que du woon yow yaa doon wax dëgg mais capitaine Touré moo doon wax dëgg il faut nga respecter li capitaine Touré doon def yow sa yoon nekku ci interview la ok interview kii interview waxal naka la demee kee mooy wax dëgg bàyyi ko mu wax dëgg mais bu fekkee sa patron moo ne doo wax dëgg dabax danaa la dugal balaa may dem ndekki ji bu fekkente ni sa patron de presse moo la yemale ne la bul wax de kooku ak Ibou Ndafa ñoo bokk ndey ak baay day dëbb ibu du aw aw ibu di dëbb muy aw muy aw ñoom ñaar benn la ñu muy valsen mënul nax kenn mais yow sa liggéey nga fa am mais du yow yaay wax somebody else was telling the truth who Captain Touré you have to bring this truth out you have to open it da nga koy ubbi dëgg gi da ngay bàyyi mu ñëw parce que ça a des vies we lost young men 15 young men in my country, Senegal. So, why you hiding this truth, Ahmed Aydara? We call you solemnly to come out. ñëwal génnal géew nga ñëw taaw wax parce que du woon yow yaay wax keneen moo doon wax kooku bu la gën a gore kooku il a déjà fait la prison perte liggéeyam toog moo tax patriote yi nañu dajale lu ñu mën ñu jàppale ko patriotes yi nañu dajale lu ñu mën ñu jàppale capitaine Touré capitaine Touré Ndeye Khady les deux la dañoo mérité ëllëg ñu tudde leen ay boulevard Sénégal boulevard Ndeye Khady Ndiaye boulevard capitaine Touré boulevard Jean-Baptiste général Jean-Baptiste tey hôpital le Dantec turu Salif Souley en l'ex colonel te mu génn àddina moom lañ ko waroon tuddee moo changé woon hôpital le Dantec salte ga fa nekkoon ak mbon mbon nga fa nekkoon yépp Salif Souley Anne moo ko defar moo ko changé mais ba léegi ñu ngi ko bàyyi turu Dantec mais ma leen di wax ni leen bis bu ñu amee les patriotes nañu changé turu hôpital le Dantec tuddee ko Salif Souley Anne le colonel patriote bu dëkkoon point E ma xam ko bu baax mu jege ma lool. mu jege ma lool lool lool lool lool lool colonel Salif ann man déggu leen ma de jege ma lool ci ay deret Salif Souleymane le colonel bi defar hôpital Dantec ci deret jege ma lool lool lool lool bu ma waxee lu ma bokk ak ñoom ngeen waaru mhm. sama a ngay dox ci biir kër Salif Souleymane le colonel bi defar bi defaroon hôpital Dantec changé ko génne ko ci condition yu bon yooyu def ko ci condition yu baax dafa change dafa laaj ñu changé tur bi tuddee ko Salif Souley Anne hôpital Salif Souley Anne mais pas le Dantec ma wax leen ko bokk ngeen xam ko mais ma dellu siwaat encore di woo ay Aïdara tey moom rek laa laay fal am na tur am na sant xam na ñu def complot bi capitaine Touré wax na lépp mais da nga ko toog da nga cee toog ñun dañuy ñëw am tele ci poche yàlla moo ko def pour defar suñu réew Sénégal yàlla moo ko def te fen du defar réew dëgg moo koy defar waa ji ñëw ñu teg ko prison dàq ka fan yi yëpp dàq gi ñuy dàq yëpp dëgg bii rek moo tax parce que dëgg bii mu la wax nii xam nañ ñun buñ ci jotee ñun dañ ciy rebondir ñun lu defar suñu réew lañuy ñuy wër man tur yi dégg naa xam naa ko ak sant yi mais du man maa koy wax yow am ay dara yaa koy wax yaay bàyyi affaire bi mu ñëw enregistrement bi ñëw bàyyi force di ko indi parce que dafa coûter ay vie amul explication de amul génn naan waaw man dañ ma sama patron lu ma sant lay def déedéet parce que du woon yow yaay wax la cousin de juge Samba Sall bi mu ñëwee danga nga ko bàyyi mu wax lépp la wax lu tax dagguloo ko capitaine Touré bu mu ñëwee di wax tamit waroo ko woon dagg amuloo ci droit ki nga xam ne dafa ñëw pour wax dëgg. ki nga xam ne dafa ñëw pour wax dëgg te loo xam ne dafa coûté ay vie mais kooku dañ ko war a tekki table ji lan ngeen di daw yéen mais lan ngeen di ragal Ahmed Aïdara génnal ñëw géew duñ la may jàmm duñ la may salam te ñëwoo géew parce que affaire bi day leer di leer di leer ba egsi ci yow nga lëndëmal ko te lëndëmal bi dafa tax ay nit ñu dugal leen ci biir suuf suuf féete leen kaw waxuma caabi féete leen gannaaw de suuf féete leen kaw laa wax te loolu mi ngi bëgg nekk sa faute parce que yaa ngi bëgg a nekk complice ñëwal géew nag waaw ñëwal géew kon ñi nga xam ne mujj nañu ñëw xam nañu in naa leen histoire bi nu mu demee fi ñu toll nii li waral live bi tey da baax sànni ci sa kàddu parce que du ma yàgg ci. on est 156. na ñëpp jël information bi jàpp ko daba waaw maa ngi lay nuyu euh, waaw ñu ngi lay fay yaasu ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax euh, rek di rafetlu liggéey bi ya euh, di hmm. sant yëpp ak activiste yëpp ak nit ñi nga xam ne dañoo taxaw ci dëgg te yàlla tax wallaay partagé leen te bëgg dëgg bëgg dëgg te yàlla tax dëgg la parce que ci gërëm boobu ñu ngi ci sant Akhenaton. dëgg la. waaw parce que lii laa bëgg waaw. lii mhm. lii laa soxla ci moom Akhenaton lii patriotisme bii laa soxla ci moom. te muy dëgg maa koy sant di ko gërëm. wallaay. Euh, di wax ne. Mhm. doomu Adama dafa lëndëm dafa doy waar. tarap. tarap. tarap. doomu Adama di ngeen tëdd fanaan yeewu lal xëy. di dañ dañi suba ngoon guddi bëccëg. di re mu lay ree di signé ay bëñ fang ndeke mi ngi yore paak boo xam ne moo lay rey. dëgg la. way mu nekk tey euh, ma koy ñaawlu trop. ci loolu mu def xanaa dafa ñaaw. ci li nga xam ne Ahmed Aïdara loolu la def. loolu loolu la def de. ça a coûté des vies. waaw parce que tey Adama askan bi daf ko yëkkati. ca kaw boot ko. waaw boot ko. mu jam ñu paaka. loolu la def de. oui Ahmed Aidara daf ñu jam paaka. c'est-à-dire a trahi la confiance du peuple sénégalais bi ñu am ci moom. billahi tax suñu yaakaar. parce que Ahmed Aidara mi nga xam ne moo daan dugg fu ne lu ne mu wax. lu nekk mu dugg ci. waaw gas nekk mu taxaw jéejowaay fii. keneen fii yuuxu ci rajo yi ay tës. Ahmed Aidara boobu ndekam nu muy toog noonu yëpp mii kër la mii kër mii kër. bu que Ahmed Aidara. waxul mais ka wax c'est le capitaine. dëgg la. moo joxe information bi. wax dëgg yàlla naka bàyyi naka génne. waaw léegi lu tax lu tax Ahmed Aïdara ñu ngi koy samp laaj. boo paree live bi man dinaa live ñu koy samp laaj. Mhm. lu tax mu tànn lu mu ciy tànn mu dagg lu muy dagg jëndee ko denc ko jëndee li nga xam ne ñun xam nañ ko moo nekk ci pey jarul mu koy wax. jërëjëf thank you. parce que la nekk lu amee ay dara lu mu yuuxu noonu yëpp sénégalais xam nañ ko. bu baax loolu du dara. donc donc la mu denc ci interview jàmbur mu dagg ko kooku ubbeeku laa biir ko wax ko daf ko kooku daf ko wax pour sénégalais yëpp xam dëgg bi. parce que su bëggoon denc du ko wax. effectivement. mais dafa ñëw def interview mu accepté Ahmed Aïdara bu dee dëgg la ci akulaay taalaam dafay taxaw ci tam ku booba boo ko déggee mu naan shérif la shérif la doomu yonent set setu yonent mais c'est pas vrai kon Ahmed Aïdara mu ngi bokk mi ngi mu ngi far ci traître ak dóorkat yi dëgg la Ahmed Aïdara journaliste la wax xaw ma journaliste la xaw ma la xaw ma géwél la xaw ma animateur la mais dem interview jàmbur ñu jox ko interview kooku jox ko interview Ahmed Aïdara ñëw dagg interview bi génneel Sénégalais li nga xam ne ok mi ñi xam nañ ko mi ngi ci rapport bi. mere naa ko de. non foofu ñëpp ko mere yow rek lu tax Ahmed Aïdara laaj bi ñuy samplaaj Ahmed Aïdara lu tax Ahmed Aïdara dem ci loolu pour lan ak lan la ci jublu. looloo ci gën a rëy loolooy leeral affaire bi. waaw mais mais dëgg nu mu yàgg yàgg day feeñ kenn mënu ko téye. barke Nabil Moustapha. yàlla du nit yàgg naa wax. yàgg naa wax ci live bi dëgg yàlla la dëgg kaddu yàlla la dëgg alquran karim la dëgg yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg mooy bàmmel. yàgg naa wax. Ahmed Aidara tant que mu wax sénégalais lu mu denc mm-hmm. lu tax mu denc ko ak lan la ci jublu duñ ko may jàmm na xam loolu nag. xam naa lu mu nar a wax xam nga lu muy wax non man sama patron lu ma wax rek foofu lay yem. Euh, moom ak patron mi yëpp Bougane Dany Diop ñun xam nañ ni Bougane Dany Diop képp Macky Sall la dafay liggéey pour Macky Sall man bokk naa ci nga xam ne gëmuma Bougane Dany bu leer Bougane Dany pion Macky Sall la Bougane Dany Diop képp Macky Sall la espion Macky Sall la c'est un traître ñu def fi deux mille dix-neuf gis nañ ko fii non seulement dafa ñu tafu ci ñun pour defar image am rocceeku dem bu muy dem mu ay yenn opposant moom moo nekkoon courtier Idrissa Seck dëgg la pour pour pour opposant yi dellu kon Bougane Dany traître la quoi. mënuñu gëmloo Sénégalais yi Bougane Dany mënul ne day attaqué rek euh, Ousmane euh, euh, Macky Sall te yore organe de presse bu mel ni Sen TV am ay problème tax impôt te état bi du la même bu amuloon taxe amul impôt sax buy attaqué Macky Sall bu doon àndul ak Macky Sall mais dal nañ ci kawam bu yàgg. dëgg la. kon Bougane mënul nax Sénégalais ay dof lay dof yi ñoo ñoo xam te dof amatul Sénégal parce que Pastef taal na xel yi yëpp ubbi na bët yi fomp na nopp yi ba Sénégal di gis dëgg bi di dëgg dëgg bi di xam dëgg donc euh, Ahmed Aïdara oui Ahmed Aïdara dana wax par force dina wax parce que su ko waxul amati crédibilité boo xam ne sénégalais amoon nañ ko ci moom. dañ koy désormais à partir d'aujourd'hui ci top Macky Sall la bokk Ahmed Aïdara. dëgg la il faut mu leer wax. ba pare dafa trahir sinon moom. patriote yi la trahir. mais c'est non dafa trahir Sénégal yëpp. c'est trop sale trahir comme non c'est plus que ça mais c'est dégueulasse. dégueulasse c'est dégueulasse. dëgg la traître mooy doxee noonu traître traître. bi Ahmed Aïdara taxaw traître. parce que ku la ko waxal ne Ahmed Aïdara loola def doo ko gëm mais doomu aadama mooy dooy waar ñëpp ñi mu boo combat yëpp ay opportuniste lañu. dëgg la de. c' est un vrai opportuniste Ahmed Aïdara. parce que moom mouvement fu muy jëlee mais fan la jëlee xaalis bu muy doxalee mouvement kon Ahmed Aïdara ci Macky Sall la nekk ci Macky Sall moo jox xaalis ñoom ñëpp ay traite lañ xaalis askan bi la ñu dundee mu ngi ngàcc deretu askan bi quoi moom Ahmed Aïdara. affaire bi garaaw na de. amee dëkk nañ ko na garaaw kii moo ma ne lu tëgg tas. ah man de maa ngi koy woo pour mu ñëw dëgg gi. ay sama patron nee na wala fii yem loolu génnewu ko ci. fii ñëpp ñëpp a koy woo ñëpp koy interpeller pour mu ñëw wax dëgg bu mu droit pour téye interview jàmbur. quinze personnes Jean le général Jean Baptiste le noble Ndeye Khady Ndiaye. la reine. Euh, capitaine Touré l'homme intègre patriote ñëpp seen addina mi ngi yàqu ci problème bi Ahmed Aïdara nga toog ci yow Ahmed Aïdara doo mane mane euh, Mahfous non attends Mahfous Ahmed Aïdara interviewé na capitaine Ahmed inter eh, interviewé na ci dossier boobu te capitaine wax na ko lu koy wax te Pape Alé mi information yaa ngi dégg baaxil ma la Ahmed Aidara dafay jënd pour mu wax nit lu tax mu dagg interview boobu lan la ci yow kay boo demee ba def interview c' est pour nga nga nga jënd information yi c' est rôle de journaliste mais demuloo def interview demuloo def interview pour téye information bi. wax dëgg yàlla lu muy jar du amul sens amul sens. amul sens bu dee Akhenaton bu dee Akhenaton waxul dëgg dañuy dal ci kaw an Akhenaton ñun dëgg lañu bëgg a wax. capitaine Touré. il est là vivant moo wax dëgg gi. capitaine Touré a dit la vérité. capitaine Touré dossier bi dossier bi ñi fi dee quatorze personnes ak benn général benn benn benn benn juge muy quinze. quinze mu am ñaata victime trois victimes yoo xam ne dañ leen dañ leen créer ak ñi ñu prison. waaw donc mënuñu toog fii Mahfouz di layam layam yi Ah, non Ahmed Aïdara la ñu tuumal Ahmed Aïdara la ñu tuumal ba léegi dégguñu réaction bon bu dee Akhenaton dafay teg pion parce que Akhenaton dafa am problème ak waa Pastef euh, waa Pastef euh, euh, comment dirais-je la Suisse mu ne léegi jëlee naa Pastef mais damay continuer xeex bu dee xeex bi Akhenaton dafay teg di teg di teg la pour boo xam ne dafay ñëw pour jaxase ak nit ñi Akhenaton dinañu dal ci kawam. Akhenaton musul dugg Pastef moom il est là pour Sénégal la bëgg Sénégal la gëm. kii li muy wax xam mais mais mais Akhenaton nekkoon na coordonnateur booy c'est le premier coordonnateur de Pastef. non non foofu Pythagore la Pythagore la. ok ok kon je m'excuse bon je m'excuse. waaw Pythagore la ak Akhenaton du benn. voilà Akhenaton voilà Akhenaton kon ok donc c'est vrai Akhenaton donc information boobu moom Sénégal rek. Sénégal waaw. mais Akhenaton bu dee bu dee aussi Akhenaton dafay dafay li mu wax ni du source bu leer mais dañuy ñun ñun ñun dëgg bi la ñuy wut. mais capitaine Touré et la capitaine Touré l'a bien précisé moom source sûre que moom wax na dëgg bi yëpp tuddal ko ay tur ci interview am Ahmed Aïdara moo ko daggate na génn. a Aïdara na génn léegi Ahmed Aïdara lu na ñi ñi lu muy wax na génn na wax lu leer. exactement na jënam wax ñu ñuy reer sinon dañ koy considérer comme top bien sûr que oui waaw parce que nag réew mi nag yàlla ku mu nar a teg ci nam réew ci bopp réew mi kenn mënu si dara kenn ah, kenn dëgg bi yëpp dina génn de nañu rafetal rek nañu rafetal parce que capitaine Touré dañu interview muy wax lépp bi cousin euh, juge Samba Sall ñëwee Ahmed Aïdara daf ko bàyyi mu wax lépp mu génne lépp nëbbul dara. waaw yaa ngi dégg le cousin de juge mhm. Samba bi muy wax ay Aïdara sàccul film bi de dagul film bi mais pourquoi capitaine Touré tudd ay nit yoo xam ne ay autorité la ca kaw parce que parce que c'est des autorités mu nëbb ñooñu te loolu mu nëbb di ça coûté des vies dafa rey ay nit dàqlu ay nit yàq àddina ay nit Ahmed tu n'as pas le droit parce que du yow yaay wax. mais kiy wax c'est un capitaine il faut le laisser parler loolu mooy defar Sénégal. et Ivoire Ivoire cosmétique ñun n'a rien contre la personne de Ahmed Aïdara y a une information information qui est sortie nous sommes des citoyens des patriotes nous voulons avoir une euh, la vérité arrêtez votre position de fumisterie arrêtez bu la ñu fontoo bu la ñu fontoo. ñoom wax dara Non, euh, il, faut il faut savoir que le dossier là a causé 13 morts, dont le plus, petit, il a 12 ans. Bukawani. Wow. 14 morts, dont le plus petit a 12 ans. C'est des jeunes à floraison d'âge. Un juge est parti. Le, général, le est victime de ce dossier. Le capitaine est victime de ce dossier. Donc arrêtez vos commentaires sataniques. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, rien que la vérité, fermez-la et disparaissez. Arrêtez. Nous, on n'a rien contre Ahmed Aïdara. Il y a quelque chose qui est sorti, on veut interpeller Ahmed Aïdara en tant que journaliste qui sort, qu'il parle. Arrêtez vos commentaires sataniques. On n'accuse personne. Nous interpellons Ahmed Aïdara. Si SI. Si Ahmed n'est pas patriote, il est malhonnête. Effectivement. Maintenant, c'est à lui de laver Personne n'est au-dessus de personne. Personne n'est au-dessus de personne. Ce qui est sûr et son patron est un top de Macky Sall. Voilà. Alors, arrêtez, de fatiguer les gens. Chacun a le droit de donner son opinion. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Dans ce dossier, il des victimes. Des jeunes ont été emprisonnés. Des jeunes ont été tués et massacrés. Des citoyens sénégalais ont été mis en contrôle judiciaire. Ils sont en difficulté financière. Arrêtez vos commentaires sataniques. Nous voulons interpeller mhm. Ahmed Aïdara, qu'il parle. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Rien d'autre. Rien d'autre. Allez, on ne lâchera pas le dossier. Moi, j'ai un fils qui est mort dans ce, dans ce dossier. Mais tête de con, arrêtez quand même. Pourquoi nous, on n'a pas le droit d'interpeller Ahmed Aïdara pour que la vérité éclate? Dëgg dëgg. Nous savons que Macky est derrière ça. Le comploteur numéro un, c'est Macky Parce que même être un patriote ne peut pas t'empêcher de faire des colonies. Vraiment. Pourquoi Ahmed Adela a coupé l'interview C'est la question. Effectivement. C'est ça le problème. Mais arrêtez quand même. Il faut qu'on se respecte. Parce que ce que nous sommes en train de combattre, l'injustice que nous sommes en train de combattre, c'est ce que vous, vous êtes en train de défendre. Mais arrêtez. Vous, vous êtes qui pas plus intelligents que les gens. Nous, on a perdu nos fils, nos, fils dans ce putain de merde de dossier-là, complété par un corps à la du Sénégal. Pour ce problème-là, 15, personnes sont mortes. des jeunes emprisonnés. Des jeunes emprisonnés malhonnêtement. C'est pas encore fini. La guerre là. Des citoyens honnêtes ragués. Des citoyens honnêtes ragués. mis sous contrôle judiciaire. Vraiment. Tout dabaax dafa mel ni da nga génn euh, line bi euh, dinaa la dugalaat mais déjà li nga war li nga wax rek wax nga ko farata bi euh, mooy effectivement ay Aïdara bu fekkente ni nit dafa ñëw toog ci yow pour wax dëgg te dëgg bi mooy defaraat Sénégal dëgg bi mooy tax xeex bi jeex dëgg bi mooy tax ñu xam dëgg gi fan la nekk mu nga muy intéressé principal mooy le capitaine de la gendarmerie nga xamee ni il a prêté serment pour liggéey liggéeyam nekk un nom intègre un homme digne et patriote un nom vraiment bu nga xamee ni nit bu jub la te baax te bëgg Sénégal te jub ñëw ci yow di def interview pour nga jàllale message Ahmed Aïdara li nga war a def mooy nga jàllale message parce que ci instant yooyu du yow yaay wax le capitaine mooy wax te le capitaine boobu di wax waroo dagg dara ci ay kàddoom lépp lu nga xamee ne dagg nga ko ci ay kàddoom rek yaa ngi ñëw nekk complice te complice defarul Sénégal Sénégal ñëpp a ko bokk muy réew réew boo xam ne ñëpp a fay yeewoo question de vie ou de mort on a déjà perdu quinze de nos enfants te xeex bi jeexagul encore te waruñu bàyyi Ibou Ndafa di di di di di di tëdd ci complot bi pour ñëw attaqué wat Ousmane Sonko ay ni bakkan di ci rotaat encore donc ay dara tey da nga am benn fardeau boo xam ne dafa diis sa yaa ngi ko ci sa kaw lenn mooy tax nga teggi fardeau boobu mooy nga ñëw nga tegaat enregistrement bi correctement parce que am nga origine bi original bi te demander pardon jéggulu ci askan wi dagg boobu nga ko dagg te bul wax ni sa patron de presse moo la wax bul def lii ak lii déedéet parce que c'est pas toi qui disais la vérité c'est quelqu'un d'autre qui t'a et quelqu'un d'autre qui est honnête et il l'a fait pour le Sénégal il ne l'a pour vous Il ne l'a pas fait pour nous, mais il l'a fait pour le Sénégal, pour sauver des vies. Donc, Ahmed, il faut respecter nit bu ñëw wax la ki ñëw di la wax moom koo semé na problème yépp endossé na ko te accepté na ko ça l'a causé prison ça l'a liggéeyam lu tax yow Ahmed mu ñëw ba ci yow nga bloqué dëgg bi fii la affaire bi nag problème bi fii la nekk te daf la cité ay tur ak ay sant ragal yépp yàlla la Ahmed fii c'est l'heure de la vérité l'heure de la vérité pour changer le Sénégal est arrivée ku ci nëbb dara rek complice nga te yàlla dina la weer comme géej dootoo tekki dara sa addina yàqu te jaru ko déjà tey jii nii mënuloo woon xalaat ni dëgg bi dina génn mais attention capitaine Touré c'est un homme bu nga xamee ne du nëbb dara te il est toujours en vie te yéen waa Ibou Ndafe fexe leen ba bu leen rey capitaine Touré fexe leen ba bakkenam bii na des fexe leen ba bu leen ko def ni ngeen def juge Samba Sall attention parce que aussi trop c'est trop trop c'est trop parce que itam mënu leen suñu nit ñu baax ñëpp ñu téye leen di leen rey one by one ngir ngir parce que seen complot bi day feeñ yàlla da leen di weer te yàlla daf leen di weer yàlla moo taxaw di leen weer te bu yàlla weer leen ci ay nit la koy jaarale du ko jaarale ci ay segg du ko jaarale ci ay gaynde du ko jaarale ci ay muus ci ay nit la koy jaarale parce que nous sommes des êtres humains ay nit lañu yuy lekk di naan di dox di wax donc nit ñooñu ci biir nit ñooñu da ciy am ñoo xam ni dañoo ragal yàlla bëgg seen bopp bëgg réew mi ñëw jub ngir yàlla